عجبني رب السماء ولدي asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa cees ñoo ngi tey fii ci diwaanu cees ñun waa Fayda TV nga xamante ni si tabaar fakkaala allah ñoo commencé émission bu bees di ko door fi nga xamante ni mooy diwaanu na Fall di ñaanal jàmm ñëpp ñi nga xamante ni ñoo baaxoo di suivre suñu émission bi di leen ñaanal tamit di ñaanal xalifa général yi tamit ñoo ngi fii nga xamante ni mooy diwaanu Madina Fall ci suñu émission Dóor waar ku ne xam na ni Dóor waar mooy nekk loo xamante ni si dafa baax ci doomu aadama te ci la ci la lay ñëpp mën a nawee tey ñoo ngi seet ci nit koo xamante ne si tabaar fakalla macha allah li muy def da cee baaxoo lool da ciy sax jaamu yàlla laa wax ndax ndax ndax euh, tabaar fakalla li muy def am na diine am na qualité tamit te qualité lay liggéeyee kon ñu ñu présenté ki nga xamante ne si mooy Abdou Samad Abdou maa lay bu baax. waaw jëriñ na la bu baax suñu aatu ñu ngi sant bu baax a baax ci teewaay bi nga xamante ni teew nga fii tey si émission waar bi. ñu ngi lay baax a baax di ziar mbokku jullit yëpp di ziar mbokku taalib yëpp kon Abdou tey dañ dañ lay poser ay question rek ndax ku ne xam na ni liggéey am na fu mu dooree am na fu mu tàmbalee am na base am na fu mu jëmee Abdou nan nga dooree sa liggéey ak bi muy bi muy soog nu mu meloon neexoon na wala metti woon na ndax yoon wu ne am na xat-xat am nay gàllankoor kon tey Abdou yow loolu loo ko dundee ba egsi fii nga egsi. waaw sëñ Atou sant yàlla rek. Euh, moom lépp sunu borom la rek comme ni nga ko waxee rek euh, nit ku nekk am nga jaar-jaar ci àdduna te nit ku nekk tamit euh, sunu borom fi mu tracé ni fa ngay jaar fa ngay jaar waaw comme ni nga ko waxee rek waaw Baare moom damay wax sax ni commencé gu ma waaw commencé gu ma laay wax ndax ay ndaw lan te sunu borom def nañu am objectif. am fu ñu bëgg a euh, fu ñu am fu ñu dem te xam na ni lépp séntuwuñ si dara loo xamante lu yomb la waaw suñu jaar jaar nag moom suñ ko dee wax fii ba suba duñ fi jóg fi la nii fanaan waaye daal xam naa ne eh, nañ ci tënk tuuti rek waaw ci li nga xamante ni mën nañ koo résumer pour ñi nga xamante ni ay ndaw lan nekk ci domaine bi ma xam ne si laa nekk bëgg a am fun jëm pour ñu gën leen doole rek li leen di gën a njëkk a dénk mooy ñu bañ a yàkkamti waaw surtout sax ndaw lu nekk ci àdduna boo xoolee suñu jeunesse bi jamono bi li leen gën a tax a tardé bokk na ci yàkkamti waaw yàkkamti te sama papa daf may jàngal ne ma nit daa war a raam comme suñu borom boo gisee ni mu bindee doomu aadama lépp loo gis ci kaw suuf rek day juddu rek dox ay soxlaam ba mu des doomu aadama doomu aadama boo xoolee day day day day juddu. Euh, def muy na yàlla muy nàmp ni muy raame ni muy jugee di daanu ni muy doxee ndànk-ndànk ni muy jànge wax ba koroog mi mën a doxee soxlaam àdduna lépp nag noonu la ko yàlla tracé ndànk-ndànk waaw ba tax na ñun daal euh, ñu ngi dénkaat ndaw yi pour ñu gën a def ndànk ndax man damay wax ni commencé gu ma sax laay wax ndax euh, ay ndaw comme ni ma ko waxee waaye suñu jaar-jaar moom fi jaar ba ak si fii euh, bari na bari na ay tolof-tolof bari na ay tiis bari na ay ay ay jafe-jafe waaye nag suñu borom may nañu kàttanu ngëm ban mën a agsi fii ñu agsi waaw loolu kon mbokk yi ñoo ko déggandoo kon tey dama naan innovation bi tey ma fi gis ci place bi te nga ni ma dooraguma kon tey lan mooy lan mooy objectif bi tey maanaam lan ngay wàcc lan ngay wàcc ci sa bopp lan ngay laaj lan ngay wàcc ci jeunesse bi nga xamante ni si amuñu liggéey ndax tey ku gis place bi nii nu mel nga ni ma dooraguma kon xëy na am na benn projet boo xamante ni mooy sa bopp kon Abdou lan ngay wàcc. waaw kontaan naa si question bi trop euh, li ma laaj noonu ndax su ma nee la commencé gu ma rek li nga wax ni dafa am solo ndax lii may def nii dama ñaanu yàlla mu yem ci man dong dama ñaan yàlla ma produit ci ay nit yi nit yàlla def na ko sax am na ñu ma ci jàngal métier ñoo xam ni sant yàlla rek ëpp nañ tey su ma doon xayma dama na ëpp nañ lu mat cinquante personnes ñii ñi ngi seen i place yor seen i wayjur ñii ñi ngi si yor seen bopp te loolu lépp sant yàlla la waaye dama am yéene mu doon loo xamante ni lu yaatu loo xam day doon centre boo xamante ni dama ci form ay nit nit nit nit ñu mën ko ndax métier la boo xam ne métier noble la waaye fii si Sénégal dañ cee desee yeewu xamaguñ ko carrément te ñun ñi nga xam ñoo nekk ci domaine bi ñoo war wax nit ñi wan nit ñi ñu xam lan la looloo waral innovation bi nga gis ndax néew Euh, gox yi ñu nekk nga fi gis genre salon yu mel ni ñoom toujours sax dañ koy wax waaw chaque jour dañ koy wax waaye nag lépp euh, mooy suñu suñu suñu sunu objectif moo waral moo moo waral loolu euh, moo waral ñu defaree ko nii rek pour am lu démontrer ndax dama nekk dëkkee ci yàlla dafa def ma juddee ci quartier bi ñuy wax Médina Fall mu doon quartier boo xam ne dama ko bëgg lool juddoo fi yaroo fi màgge fi waaw laa liggéeyee tamit sama yéene tamit ci dëkk bi gox bi mooy bokk ci ñi nga xamante ni dañ koy développé moo waraloon bi ma war a demee ba réaliser bëgg réaliser salon aw ma objectif fenn fu dëkk bi naa dem ville wala ma dem beneen quartier waaye dama ne damay toog defal développé sama gox ndax bëri na loo xam dañ fi daan yàgg dégg mooy naqari waaw muy Médina Fall dama na ba dëkk bi daanaka considéré wuñ leen waaye tey sant yàlla rek ndax dem nañ ba naan salon bi fi dàq. bu doonu salon bi fi dàq Thiès tamit bokk na ci salon yi dàq Thiès Médina Fall tey la ko yàlla def salon yi am climatiseur Médina Fall la ko yàlla def loolu tamit dafa doon sama principe ci dëkk bi doon sama principe ci gox bi pour lépp rek pour développer bëgg sama gox ndax xubul watali minal iman loolu la suñu borom wax xubul watali nag mi ngi commencé sa biir néeg teg ci sa kër teg ci sa koñ teg ci sa dëkk soo ko see teg sa réew yenn saa salaam waxam dañ koy taawil waa loolu loolu mooy xubbul bakkan yi foofu nag loolu tax nag ma liggéeyal sama gox moo waral may reyante di dégg tey bëri na quartier yu nekk Thiès yëpp fi la ñuy watoo loolu fierté la si man am na ñu jóge ba dakaar ñoo xam ne par YouTube lan ma gis euh, par par par par Facebook lan ma gis jël sama contact jóge ba Dakar ñëw di watu si fii loolu dama koy sagoo bëri na quartier yu nekk fii ay Grand Sagne quartier yi nga xam ne moom lañ gën a estimé Thiès tey day ñëw di watu si ndax liñ bëgg am na fi euh, hygiène bi tamit am na fi waaw loolu tamit dama koy sant yàlla ndax dafa bokk samay mébét waaw ñu ñu may gën a ñaaxaat gox yi euh, jëni réew mi yëpp waaw rawatina Thiès gépp rawatina waa Médina Fall ñu gën a delluwaat gëm suñu bopp ndax tey boo nee Médina Fall rek képp kuy ñafe carte rek cees Médina Fall nga juddoo Médina Fall nga yow ki dàq jàng lii lycée boo ko demee xool ko Médina Fall léegi université fa dàq jàng boo ko toppee bu topp ko Médina Fall la ko kon ñun dañoo am ay cadre am ay nit ñoo xamante nii yàlla dafa def ci ñoom xel ak bëgg ku mel ni mën naa si cité borom kër gi di taay Fayda TV muy sëñ Matar waaw volontaire am ak bëgg-bëggam moo tax tey mu ak fii dañ koy ñaanal nag yàlla moom it xam naa ne dooragul dañ koy ñaanal yàlla euh, télé bi dem ba bokk ci sit yi gën a influence ci àdduna bi ñu koy xool ndax sama fierté mooy Binda Fall la dëkk waaw tey mën naa ñëw ñu nekk nekk feneen ci àdduna bi toog di ko tiitaroo waaw daan kii Binda Fall la dëkk waaw kon gox bi ñun noonu lañ ni ñu bëgg a développé gox bi tamit noonu lañ bëgg a développé Thiès noonu lañ bëgg a développé Sénégal waaw sëñ Aada kon macha allah gars yi ñoo ko ñoo ko gisandoo gis ngeen de taar taar fa kàlla macha allah clim de moom yaakaar naa ni fii ci Thiès maa ngi soog a dugg place boo xamante ni fii la amee clim kon tey ñu leen di laaj maanaam tey seen liggéey bi yan yan difficulté ngeen ci jàkkoonteel. waaw bari na bari na bari na difficulté yu ñu ciy jàkkoonte parce que dafa doon liggéey boo xamante ni dafa doon liggéey bu difficile te nit ñi xamuñu ko dafa bëri danger bu ci nekk danger bi mu ngi ci yow miy wat danger bi mu ngi ci yow mi nga xamante ni yaay watu. dafa doon danger bu bari boo xamante nii daf ci nekk kon bëri na difficulté loolu tamit waroon nañ ci gën a sensibiliser nit ñi pour ñu xam ko xam wat danger bi ci nekk parce que boo gisee ma gën a reyante pour def euh, def def kilim bi euh, dafa am benn benn association euh, benn dafa am benn société boo xamante ni dañ fi nekk ay almaan lan ñoon doon defal formation professionnelle malgré yàggoon naa ci métier bi mais mosuma gëm gëm ni man amoon na lu des ci man waaye depuis ñu defal ñu formation professionnelle boo xoolee moo nekk nii tubaab bi moom laa àndal nii ci photo bi waaw lii mooy sunu jur bi ñuy jox sunu remise yi waaw formation professionnelle bi ñu koy defal ci lan xamee dëgg dëgg ni ndekete dañ doon risquer sunu vie waaw danoo nekkoon ci danger boo xam ne xamuñu ko ndax euh, tey ngay watu ci ventilo ventilo bi am na danger bu muy dégager waaw ndax karaw bi da lay dugg yow miy wat waaw ndax ki ngay watal wat mënoo ko takkal masque te yow miy wat da a takk masque loolu bokk na ci kilim li ëpp sécurité kilim bokk na ci ndax karaw gi warul jóg warul dégager loolu tamit bokk na euh, ci euh, li tax ma gën ko orienté pour réaliser ko malgré Euh, maa ngi ñaanal sama mbokk coiffeur yëpp ñu mën ko réaliser dan boole ko seen programme ndax dafa am solo euh, ba pare tamit dina joxe hygiène boo xamante ni dina permettre nga am hygiène boo xamante ni euh, sécurité ci ci nit ñi la boo xoolee fee yaa ngi gis ma teg alcool gel yi waaw yooyu yëpp daf am solo parce que client bi ñëw ci yow boo koy wat dafa laaj sécurité waaw dafa laaj sécurité après sax xam naa naa naa la ci wan balaa ñoo pare naa la ci wan misaal bi parce que bëri na kuy watu jékki-jékki am feebar fekk mu ko jëlee ci coiffeur bi te xam ko yooyu yëpp dañ ci war a yaatal yee ci nit ñi pour ñu xam ko waaw loolu moo tax ma gën a reyante pour gën a moderniser waat liggéey bi parce que loolu mooy suñu objectif waaw jafe-jafe yi ci jàngoon tamit tamit bokk na ci client yi xam nga tamit nit dafa naqaree jëflante waaye yàlla nu yàlla gën a may xolu muñ waa parce que tamit euh, tey dangay def euh, bokk na ci da ngay def euh, jël sa xaalis réaliser ko mu doon loo xamante ni bari na néew na waaye tamit ku sañoon li ngay liggéey ci ngay jëriñoo waaw su ku sañoon li ngay liggéey si ngay jëriñoo waaye tamit da ngay fixer sa prix parce que xool nga ba xam ne lii moo la arrangé parce tey boo amee climatiseur wala nga ngay fay place fay courant boole ak say bëgg-bëgg yi doon ome de famille yor yor kër xam nga yooyu eh, say say say mbokk yaakaar la nit yi nit yàlla yi yaakaar la jaam yàlla yi yaakaar la loolu yëpp nga war ko am sa liggéey yaakaar naa tey Thiès ñi ngi wootee 1000 francs waaw foofu la tarif bi dem 1000 francs ndax man association des coiffeurs de Thiès laa bokk ñi ngi wootee 1000 francs xale ñu def cent om 1000 francs mais man bi ma ñëwee xale yi dama ne comme que ñoom yàlla def na bëgg nañ watu te ay néew doole lan comprendre nga euh, ma bàyyi seen tarif fam nekkoon def ko cent comprendre nga mais mag ñi ma def homme 1500 kon tarif bi 1000 francs yi cent laa ci yokk te yaakaar naa sëñ bi aado ah, loolu jar na ko euh, VIP yi ma defal leen mille VIP yi mooy ngay watu par exemple tey euh, bëgg a ñuulal sa karaw nga xam ne am na lu dool lu plus si wat bi wala nga bëgg def soin de visage am na loo xamante ni kon euh, euh, euh, dolliku na si wat bi su de visa dafa am loo xamante ni il faut ngay communiquer ak clients yi parce que clients yi am na ñoo xam ne bañuñu ko mais dañ koo que nit ki day am kanamam yu nekk yoo xam ni du ko xam léegi soo xam day jékki-jékki bëri ay picc ci kanam gi loolu warkat bi moo ko war a dindi bëri koo xamante ni kanam gi day am ay peau grasse ko warkat bi moo ko war a dindi loolu lépp nag ci xam-xam bi nu yàlla dénk ak gëstu bi nu gëstu ci leen ko xamee léegi dama damay fexe ba sama client ku ko gis dootoo gisati si moom wat bu rafet kese doo ko xool ci moom mais di nga xam ne kii kanamam gi macha allah loolu yëpp nag ay produits la yoo xamante ni moom mooy dindi loolu loolu mooy waral euh, VIP bi am na yoo xam dañ naan la place bi da ko war a def lépp VIP man leen déedéet doole yamut te ginnaaw man liggéeyal sama gox moo ma tax a jóg damay fexe yaatal ñëpp bokk ci ñëpp jot ci ku ne daal place bi am nga fi sa cër waaw muy xale bi bëgg a watu yee téeméer lay fay kooku ñoom seen prix moom nee naa leen du mos a yokk du ma ko mos a yokk kon man sama tarifu bopp laa yor bokkuma ak tarifu association bi malgré association 1000 francs la ne jafe uh, uh, si yàlla waaw kon macha allah dafa mel ni innovation bi yamul rek ci place bi dafa dafa yokk ba ci liggéey bi ndax comme ni mu waxee ñii day wàccee mille francs mais moom 1500 xale 500 ñii VIP yi 2000 jar na ko ndax tabaar fakàlla macha allah boo duggee ci place bi ak ni mu yànjee maam toog bi nga tàngaay wi nga doxee sa kër ñëw rek toog kilim di la ëpp rek loolu jar na lu raw mille comme da Abdou kii baa ngi bëgg a mu ngi bëgg a sori xanaa dañ lay bàyyi rek. nga nga tàggatoo te nga sànnil ma kàddu ci ñi nga xamante ni si mooy jeunes yi nga xamante ni ñoo ngi jël gaal yi di dem bitim réew parce que dama naan fii Sénégal y a pas de sous nit ki lépp loo gëm rek dox ci war nga cee mën a tedd. ah sëñ waaw comme li nga wax rek am na solo lool <laughs> li tàggatoo moom ginnaaw bi sant yàlla dellu julliwaat si sangu-sangu yi Seydina Mohamed sant suñu yaakaar tey ëllëg muy Sëñ Tuubaa ci moom sax laay dellu ndax. ñun moom ci enseignement la nekk ci yoonam lañ nekk te Sëriñ Tuubaa lépp euh, bind na ko lépp wax na ko tey boo xoolee mi ngi naan euh, yeneen saa bi mu ko feeñoo li mu ko njëkk wax mooy rabbi asaabaka bil himma wala turabbihim bid dars boobu mi ngi nekk ci daara ji Maam Mor Anta Sali bàyyi ko daara ji su ko neexoon continuer di jàngale. toog foofu comme ni def ci sëriñ yi def di fay ko su weer dee ñu fay ko jox ko leen koy am ñu koy jox waaye def ko himma sëñ Tuubaa dafa dépassé foofu waaw moo tax yenn sa ko feeñoo dañu ko rabbi asaabaka bil himma wala bi darsh sa ñoon ñi ngay jàngal bul yem ci jàngal leen leçon rek maanaam jàngal leen leson ñu xam ko dem waaye da nga ci yitte himma himma mooy yitte itte boobu nag moom na sunu borom def si ñun taalibe Sëriñ Tuubaa waaw mooy himma himma boo ko déggee mën naa ko si euh, firi ci lu gàtt rek mooy euh, volonté waaw da am volonté gëm ni lii nga war a am kon ndaw yi li leen di gën a dolli li leen gën a ñaax mooy ñu gën a am gëm gëm nag yàlla da cee jiitu waaw gëm yàlla ndax yàlla moo ne wa maa min daabatin fil ardi illaa alallaahi rizquhaa waaw euh, amul kenn kuy dox ci benn mbindeef buy dox ci kaw suuf loolu suñu borom man maa yor wërsëgam kon gëm naa nit ki bala ngaa faatu li nga war a am di ko am kon dañ delluwaat suñu bopp gëm ni réew mi ñun ñoo war a liggéeyal malgré tukki fa yàlla tuddee di nga ko def waaye ñun ñëpp bu ñu demee réew mi kan moo fi des pour liggéeyal ko waaw kon nan gën a delluwaat ci ci ci ci ci ci ci sunu sunu bopp gën a delluwaat ci njàngam Sëñ Tuubaa waaw boo gisee tey jii métier bi may def nii Sénégal métier yi gën a xeeb yi gën a xeeb Sénégal la bokk waaye tey jii mi ngi doon métier mi ngi commencé gën a ndaw waaw loolu ñun ñoo koy liggéey def ko suñu bopp def ko suñu xel gëm ni ñun ñoo war a développer réew mi toog liggéey waaw tey 400 mille yi ngay jël def ko ci gaal euh, yàlla xam na ni départ la tey boo ko amee Sénégal fii mën nga cee commencé am départ ba koroog li yàlla def mën ngaa jël jaar tukki jaar ko fi nga ko war a jaar daal di dem bu ko defee bu boobaa euh, jafe-jafe yëpp mën na mën na man mën na mën mën nga cee bañ a fekk ndax man de wax dëgg yàlla digaluma ko kenn muy jël gaal di ko di ci dugg di dem ndax wax dëgg yàlla risque boobu moom digaluma ko kenn kon nag risque la xëy na tamit euh, fi ñuy tollu bay def loolu tamit loolu lañ war a xool parce que problème day dellu ci source bi lan moo waral niveau bi nga toll ba war a def loolu loolu tamit dafa jara xalaat parce que tamit loolu man mi dund naa ko yow mi dund nga ko keneen ak képp ku nekk ci réew mi dund nga ko ndax. mën nga am jafe boo xamante ni mën nga am jafe boo xamante ni moo lay permettre dugal la ci loo xamante ni buggoo ko woon nag ñi si jiitu pour régler ko mooy suñu autorité yi waaw ndax Sénégal ñaara ko séq muy état bi ak sëriñ yi tey ku fi nekkul ci. Euh, kii rek yaa ngi ci këru diine ñëpp ci këru diine la nekk waaw kon suñu kilifa yi ñaari état ñaari kilifa yi ñaari état yi mu état islamique bi euh, ak ak nguur gi war na noo toog ñu waxtaan ñu xoolaat parce que tamit euh, sëñ bi neexul nan ko waxan nan waxante dëgg nga nekk ci dëkk jafe yi wër leer na ni war naa mën a régler waaw ndax kat wax dëgg yàlla nga war a am soxla faj ko fajuwut nga gis sa moroom tey da ngay nekk maa yow ma nekk fii dix ans di liggéey yaa ngi dégg mënumaa jënd sax kër wala mënumaa tabax sax benn birig yow nga tàggu ma dem Europe ñëw même pas six mois nga ñëw tabax yor oto def lépp ci même pas ñaari at wala ñetti at man ma nekk fukki at ci benn affaire kon affaire bi foofu la problème bi nekk léegi nag man su ma demee ba gis xool lool rek damay jàpp ni man su ma yàlla mayul gëm yàlla gu dëgër këcc waaw damay jàpp ni kat yow man dama war a def ni yow léegi xaalis bu ma yóbbu ma mën a jaar ci avion amu jaar ci avion yoon yu baax yi waaw mais li may concentré aussi yow damay mujj ma sacrifier sama bopp du xam ne sax gaal laa dugg man damay jàpp ni rek euh, dinaa àgg sa am am rek laay gis sama bët mais loolu noonu danoo war a delloo si waat ndaw yi parce que programme bii bi ko tubaab yi teg fii Sénégal waaw muy waa GFA loolu lañ si jublu danoo bëggoon danoo bëgg ndaw yi bañ a def seen xel mel ñoom danoo gisoon lii parce que boo xoolee environ ay Euh, dix dix mois ci ginnaaw la kon ñoom gisoon nañ lii gisoon nañ ni ndaw yi ñuy dee ci classe parce que loolu lañ wax dañu ñun dañuy bañ ngeen euh, jël gaal yi waaw moo tax ñu defal ñu formation professionnelle boo xam nga xam ne ñu dañuy gën a mën a professionnaliser suñu liggéey gën a xam yoon bi ñuy jaar pour am gën a xam yoon bi nga xam ne moo ni dimbali ba li bëgg ñu am ko moo waral ñoom ñu tegal ñu programme bi parce que tey bari na lu ma si jàngate loo xam ne man mosuma woon a xam ne dinaa ko xam waaw parce que gestion sax bàyyiwul la da lay jàngal li ngay gestionné jàngal la marketing waaw yooyu yëpp da ciy am parce que fii da ngay ñëw watu boo ñëwee toog war a fay euh, boo fayee mille francs wala nga 1500 ñu jël butéelu jox la wala jox jël ndox jox la loolu marketing la. yaa ngi toog climatiseur bu sedd la ëpp ngay di ngay naan lu sedd di patienté sa sa sa wat loolu lépp ñoom ñoo nu ko jàngal mais tamit état yi danoo état bi dafa war delluwaat ci ndaw ñi mais ñun leen am ci suuf problème mooy dafa mel ni ñun réew mi dañoo suñu état yi suñu suñu population yi dañ leen a ñorul mais lii nekk Sénégal suñ ko exploité. Euh, wax dëgg yàlla di réew mi yëpp xale yi ndaw yi duñ soxla duñ soxla duñ soxla génn parce que tamit saa yi dañu waxante dëgg mënoo di liggéey ba weer dee doo am sax loo mën a dimbalee sa wayjur wala loo xamante ni sa soxla bopp mënoo ko faj loolu daf lay permettre boo ko booy booy dugg ci gaal gi sax doo ko tey parce que problème yi ngay dund moom ngay dema dem ba moo moo la moo moo lay supérieur waaw problème yi da lay dépassé dépassé ko mu lay dépassé moo lay waral nga dugg ci problème parce que ñàkk baaxul yàlla na yàlla mosal yeneen daa gën a koo ñàkk ñaan yàlla musal ñu ci ñàkk parce que ñàkk day dugal nit ki ci loo xamante ni problème bi am ci gaal yëpp loolu la mais daal man damay ñaaxaat sama mbokk jeunes yi ñun toog delluwaat ci yàlla delluwaat suñu bopp ci yàlla ndax yàlla lim gën a soxla ndaw la lislaam lim gën a soxla ndaw la réew mi lim gën a soxla ndaw la kon ñun buñ sacrifier suñu bopp ci géej gi Ah, léegi ñun fan la fan la fan fan la fan lañ jëm fan la réew mi jëm ana suñuy ndaw man maa ngi dëgg benn tiis boo xamante ni métti na dëkk boobu nga xam ni presque seen jeunes yëpp ci lan des loolu dafa metti waaw xam nga loolu tamit euh, vraiment doonul loo xamante ni lu neex la kon tamit. nan gën a delluwaat ci yàlla gën a delluwaat suñu bopp su la xam ne wërsëg bi suñu borom moom moom moo ko yor waaw suñu borom moo yor wërsëg bi ñu gën a delluwaat xam gën a takku liggéey xam ne war a liggéeyal suñu suñu réew xam ñoo war a defar suñu réew waaw bañ a bañ a bañ baña bañ a bañ dugg ci gaal yi wax dëgg yàlla conseil wu ma ko kenn conseil ma ko ndax li nga war am moom bala ngaa faatu da nga am dëkk bi nag metti na autorité yoo xam ne dëkk bi metti na man fii ma nekk jëwriñ di fi liggéey man xam naa ne dëkk bi metti na du ma ne lii laay def ci lu baax du ma ne lii laay defal jaam yàlla du ma du ma ne social bi la ndax li may def yàlla rek moo ko tax ma koy def mais man mii nekk ci place ak képp ku nekk ci place bis ma ne yaa ngi gis koo xamante ni gor pire la gu set wicc waaye xam nga nit mënoo toog di xool say njaboot ni xiif yow mënoo toog di xiif lekkoo naanu tey jii man su ma añul woon wala ma lekk du ma mën a toog fii di waxtaan ak yow kon nan xamante loolu dëkk bi metti na trop nan dimbali nit ñi nan génn xaalis bi nan génne euh, borom alal nan dimbali nan gestu waa réew mi ñu ñu jàppale jeunes yi ñu liggéey jeunes yi am jom lan am jeunes yi nangoo liggéey am parce que dem bay jël sa bakkan di ko teg si gaal xam nga ni am nga jom waaw nga nekk da nga faa am lu nga bëggul si Abdou Karim ni mu ko waxee rek wax na ko nee na xale yi li ñuy dégg ci moo leen di moo leen di permettre ñuy dem bëggee parce que day nekk si kër morom si koñ bi sa ñu naa la da ngaa ñàkk jom sa morom am na lii sa morom def na lii sa morom def na lii affaire ba daf lay poussé ba dugg gaal yi doo ko tey loolu rek moo ko indi ba baax na tax daal ñu ngi santaat bu baax a baax a baax di rafetlu jotaay bi di santaat sëñ Matar bu baax di gën a ñaanalaat télé bi sëñ Aatu euh, waa Faaida TV yàlla defal leen jàmm defal leen tawféex waaw sëñ Matar mii tamit euh, na ko waa Thiès gépp ñaanal rawatina waa Sénégal ndax man li ma gën a neex ci tele bi mooy moom dong laay siiwul su ma duggee YouTube diine daf ko jox cër jox ko gëdd jox ko itte bu mat sëkk waaw di delloowaat nit ñi di dugal ay waxtaan yoo xamante ni day delloo si waat doomu aadama yi man mii di wax yow damay déglu dégg ci moom ci ay taalifam yoo xamante ni daf may delloo si waat daf may gën a dolliwaat xel di gën a yee nit ñi loolu nag dañ koy sant yàlla bu baax a baax di ko sant sëñ Madaar mi nga xamante ni moom loo suñu boom def si moom mu am yéene di ko delloowaat ci askan wi di ko ñaanal nag télé bi comme li ma ko waxee rek mu doon site bi gën a influence ci àdduna bi ñëpp di si jot ñëpp di ko seetaan sant nañ bu baax a baax a baax a baax ñu ngi jégalu bu baax di jégalu Sénégal gépp waaw kon mbokk ñoo ko déggandoo kon gis ngeen maanaam képp koo xamante ni yaa ngi diwaanu cees rek nga soxla ki nga xamante ni mooy Abdou Samad da ngay ñëw ba fi nga xamante ni mooy Madina Fall fii ci benn chèvre bi foo taxaw rek boo laajee Abdou Samad dinañ la ko wan comme nañ ko waxee rek kon boog suñu nguur gi tamit aussi ngeen bàyyiwaat jeunes yi xel bàyyi jeunes yi xel bu baax jël am jël liggéey bi tegaat ko ci jeunes parce que jeune moo yore réew jeunes yi fa fakkaala macha allah ñoo yore réew kon bu ko defee rek dañuy wàcc foofu suñu kàddu di ziaraat di gërëm ñi nga xamante ni ñoo baaxoo di seetaan ki nga xam ne mooy Faaida TV kon mbokk yi fii la ñu yem ak yéen suñu émission waar wi kon bu ko defee dañuy wàcc suñu kàddu ba beneen yoon incha allah rabbi